asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum diaspora bi maa ngi leen di nuyu man la Sagar Faye Njare Faye ñu gën ma xam ci Sagar Faye ma nekk tête de liste département de Pikine ci naataange coalition naataange askan wi. di nuyu suñu président docteur Mouhamed jàllo di leen xamal ne leen coalition naataange askan wi daf ma tànn def ma présidente national def ma tête de liste département de Pikine ma ñëw bëgg a waxtaan ak waa Sénégal. tey nag li may waxtaan ak yéen ci développement la ndax ñun femmes yi développement moo ñu tax a avancé te maa ngi nekk présidente alliance des femmes leaders nekk présidente des coiffeuses département de Pikine may nuyu ñëpp di tàllal ñëpp loxo ci coalition bi ndax ñu mën ñoo dooleel li ñuy dooleel mooy lan liggéey bi ñuy liggéey ci développement muy jàppale bi nga xam ne ñoo ngi koy jàppale jigéen ñi di leen dawal coono ndax jigéen ñi banlieue bi ku ne xam ne ne sonn nañ ci niñ leen di jàppalee ci liggéeyu ci financement di leen lebal fukki junni benn bés nga teg ki dix mille francs mu nekk soixante mille ci benn jour métti na ci jigéen ñi ba tax na ñun formé nañ jigéen ñi di leen jàngal ni ñuy épargner ak crédit ba tax dootuñu sonn bu événement jotee ñu dem ak ñoom ci suñu propre moyen di leen ci jàppale tey nag ñu bëgg a ànd ak coalition Naataangué askan wi pour jàppale Sénégal pour mu naat ndax jigéen ñi coono boobu ñu nekkoon ñu mën ñoo dooleel ñu jàppale jigéen ñi ba tax jigéen ñi fàtte seen coono ndax jigéen ñi sonn nañ te ku ne xam na ne jigéen mooy yaay jigéen mooy kër jigéen mooy jàppale jeunesse ndax suñu doom yi bu ñu amee dimbale leen du ñu sonn te li ñu mën a may mooy lan jënd ak jaay ak formation yi nga xam ne ñoo koy former jigéen ñi te bu ñu leen former du am suivi ñu ñooy obligé leen jàppale pour ñu mën a eggale seen bopp fi ñu jëm ñuy tàllal Sénégal yëpp loxo nag bëgg ngeen jàppale naataange askan wi ndax naataange askan wi bés bu jàllee assemblée nationale dina mën a dimbale jigéen ñi ci développement dina mën a wàññil jigéen ñi coono boo xam ne ci lañ nekk ndax ku ne xam ne ne Sénégal bu naatee nit ñi dinañ bég Sénégal bu naatee nit ñi dinañ kontaan Sénégal bu naatee jeunes yi dootuñu mer coow dootul bari kenn dootul am la naqari kon ñoo ngi tàllal Sénégal yëpp loxo bëgg ñëpp jàppale naataange askan wi buñ jàppale naataange askan wi jàppale docteur Mohamed Diallo incha allahu taala fi mu bëgg a yeggale Sénégal bu ko fa yeggalee defe naa Sénégal yëpp dinañ kontaan ñuy nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp surtout banlieue bi ma jógee muy département de Pikine maa ngi nuyu femmes yi nga xam ne ñoom laa jiite di nuyu femmes yi nga xam ne ñoom ma bàyyi xel di nuyu ñi ga xam ne bëgg nañu egsi ci man. ndax defe naa suñu euh, président dafa fonk jigéen ndax boo xoolee région de Dakar tête de liste yëpp jigéen la ko def ñu koy rafetlu nag ñun jigéen ñi war a gën a takkaat suñu digg gën a doonaat jàmbaar waaye ci kaw loolu ñoo ngi ñaan ñu dooleel ñu. Euh, bu ñu dooleelee ba coalition naataange askan wi am majorité assemblée nationale loolu dina amal askan wi yëpp njariñ mbir mi nag vote la ñoo ngi tàllal Sénégal yëpp loxo kenn ku nekk nga téye sa kaatu électeur le 31 ngeen jàppale naataange askan wi ah ñu carte yi fal ñu ñu dem assemblée nationale ndax xam nañ leen manqué xam nañ fii metti te bu ngeen ñu fa yóbboo incha allah fii metti dinañ leen ko fajal ndax mooy lan coono bi nga xam ne Sénégal sénégalais yi sonn nañ ko. surtout jigéen ñi nag ci jigéen ñi laay gën a insister parce que jigéen ñi ni ma koy waxee toujours ñooy yaay jigéen ñi ñooy kër jigéen ñi ñooy njaboot te jigéen ñi ñoo war a mën a jàppale seeni doom te ku dooleel jigéen dooleel nga àdduna ku dooleel jigéen dooleel nga Sénégal kon ñoo ngi tàllalaat jigéen ñëpp loxo di tàllal jeunesse bi loxo ñu mën a pousse seen yaay yi yóbbu ñu assemblée nationale ñu mën faa am doole joo xam ne liñ bëgg ñoom dinañ ko am mooy lan Sénégal naat naataange askan wi daal bëgg nañ mu mu mu fës Sénégal ñu dooleel ko Sénégal moo am majorité assemblée national ba li mu a xeexal askan wi mu xeexal ko askan wi loolu lañ leen di ñaan kon nag ñoo ngi ñaan ci yàlla tàllal leen loxo bëgg ngeen jàppale ñu bañ dem assemblée national mën na dimbali jigéen ñi ci néew doole gi néew doole wàññeeku jàppaleen ci coono bi nga xam ne ñoo ngi koy jànkonteel mu wàññeeku surtout xale yu jigéen yi xam ne dañ leen di former ci couture ak coiffure te mënuñoo am avancement jigéen yi nga xam ne ay baana baana lañ di jaay njaay mu sew te amuñu doole ñun rek lañu yaakaar ñu leen di jàppale bu ngeen ñu jàppalee bañ dem assemblée nationale defe naa dina gën a neex te di ngeen gën a kontaan kon ñoo ngi tàllal Sénégal yëpp loxo di leen ñaan ngeen jàppale ñu ñu mën a gagné ñu waa naataange askan wi Sénégal mën leen a jàppale ba li ngeen bëgg incha allahu taala ñu yegg ci maa ngi nuyu ñëpp nag di ñaanal ñëpp di nuyu surtout département de Pikine gi nga xam ne fa laa maa ngi nuyu les douze commune maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen tàllal loxo képp koo xam ne yaa ngi fa nekk di jigéen mbaa ngay xale maa ngi lay tàllal loxo pour nga jàppale ma naataange askan wi assemblée nationale ñu mën fa am doole maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan sama wax ji yal na leen fekk yéen ñëpp ci jàmm ci barke Seydina Mohamed maa ngi nuyu ñëpp.